bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta al alimu alxakim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 ñu bokk sant yàlla ci ñaari xéewal yañu ñu yàlla yenkeewal benn bi di xéewalu jaamu yàlla te mooy xéewal bu jiitu ci xéewal yi waaye ñaareel bi di xéewalu nelaw bam ñu baaxee ñu joxe ko ci waxtu su néew ci ginnaaw xam ngeen ñaari xéewal yi benn bu ci nekk dafa am ngëneel bu mag ci dund jullit bi ba tax na ka yàlla doyloo di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa bem ko yónni ci xeet wi mu du ñu jàngal ana yan anam lañuy sante yàlla gannaaw bum ñu yenkeewale lenn ci ay xiiwal ya nekk fa moom yàlla ndegem sant yàlla jooju ñu war a sant yàlla duñ ko mën a defee comme nuñ ko foogee wala nañ ko xelaate waaye dafa war a la yonent bi jàngale mu méngoog na ko buur yàlla subhaanahu wa soobe ba tax na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal ne képp ku di jullit bu la yàlla wërsëgale nga dundu guddi goo xamante ne faat na la ci waaye gannaaw si mu dellu la sa ruux ba nga dundaat weneen bés lala la war sa digganteeg moom yàlla di sa boroom mala faatoon ci nelaw gannaaw si mu delloo la sa ruux yenentu bi num ñu jàngalee ne noonu lañu noonu war sante boroom jooju subhaanahu wa taala moo ne dañu war a wax alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur la ñaan bi di tekki mooy dañu war a sant buur bi ne ko alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu matale yow dong la ñu yow borom bi subhaanahu wa taala yaa ko yeyoo yow rekk la ñuy sant cant bu ni ndax yaa ñu faat ci nelaw ginnaaw si nga delloo ñu suñu ruux te si yow borom bi la ñuy dellu gannaaw bu ñu jógee ko ci kaw suuf si ba tax na lii xeetu cant yàlla la ci xiwol yëm la defal ndax moo ñu ne wa ja'alna kom subaatan ci suratu naba boo demee xool ci amma yatasaaluun di nga fekk aaya ba fa nekk borom bi tabaraka wa taala mu ne ñu wa jacalna man yàlla maa leen defal nawmakum nelaw bi ngeen di nelaw subaatan ngeen di si fàggoo dallu kon dallukaay ju mucc ayib ña ngi koy amee ci nelaw waaw nelaw jooju nag mooy la doomu aadama di def te du fay xanaa kañ foo koy defee ngay fay walla fu ñu waajalal ñu ni képp ku ko fi defee dangay ngay fay waaye peyoor bi sa diggante sa boroom malay roofu ngelawu nelaw loolu moom gratuite la loolu majjaanan la la anglais yi di wax free free gift loolu free gift la waaw dañ la koy jox majjaanan dañ la koy jox gratuite doo si fay dara waaw xanaa lu fi nekk kañ fuñ koy defee foofu ngay fay bu dee da ngaa luwe wala ñu waajalal la béréb boo xamante ne fa nga koy defee te foofu da ngay fay waaye sa digganteeg sa boroom balay roof ngelawu nelaw woowu loolu amul peyoor ba tax na dallukaay ju mucc ayib doomu aadama bi muy góor di jigéen di mag di ndaw di ki am ak ki ñàkk di buur ak baadoola ñépp la fa yàlla yemale buur bi tabaaraka wa kon xéwal bi ni mel buñ ko sottalee ba pare la ñu war mooy dañu war a sant yàlla buur bi tabaaraka wa ne ko mboolem xeetu cant yu matale yi mboolem xeetu cante yu kawe yow dong la ñuy ñeel ndax yaa ñu faat ci nelaw ginnaaw si nga dellu ñu suñu ruux ci yow dong lañuy ñuy dellu gannaaw bu ñu jugee ko ci kaw suuf si kon loolu lenn la ci xéewalu yàlla yi waaye bokkoon na ci xéewalu yàlla yamu baaxee askanu julit bés bi di gaaw mu tombeek ñaar fukki fan ak ñett ci weeru zilxijja mooy weeru tëbaski ñu di leen fàttali ne rek des na suñu digganteeg ashura di tamxarit xarit dix-huit jours fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett moo des suñu digganteeg tamxarit xarit di ashura ñi ñaan yàlla bés bu mag boobu buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne tey mooy fukki fan ñaar fukki fan ak ñett le 23 si weeru tabaski mooy weeru zilhijja mu tombe gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 1445 gaaw gi di tey bokk na ci lañ leen bëgg a dégtal mu nekk la nga xamante ni jullit bi waru ko war a mën a ñàkk diglu ndax ki yàlla doyloo ci xeet wi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko baaxee mu andil ñu ko ngir ñu war kaa war a mën a installer suñu dund ñu war kaa war a mën a inculquer suñu dund ñu dund ak moom su ko defee buur yàlla tabaraka wa taala daal di ñu may tawfiq bi nga xamante ne moom lañuy ñuy di ko dundee gannaaw bu ñu tënk suñu bopp ci la yonent bi joxoñ sallallahu alayhi wa sallam ba tax na jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bu mag ki ñu naan abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana yuminu billahi walyawmi al axir fala yuzi jaarahu wa man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yukrim dayfahu wa man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yaqul xayran aw li yasmut muttafaqun alayh mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla doyloo ci xeet bi ki yàlla tànn ci askan bi ki yalla joxoñ ne moo ko doy bem ko tànn mu def ko mu doon ndawam ci jaamaam yi mooy annabiyul mustapha sallallahu alayhi wa sallam sahabatul kiram alayhim ajmain ñamu yaroon ci keppaaram kenn ci sahaaba yi di abi hurayrata radiyallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm moo ñu baaxee xadis bañ leen waaj a digtal nii fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci waxtu wi kon nañ leen may nopp saxaabi bi di abi hurayrata radiyallahu an lam ñu ne moom la ñu yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ngir buñ ci tënk suñu bopp dinañu dund dundun bu mucc ayib waaye suñu dundun dina nekk dundin bu ñoŋ su ko defee jullit bi installé jikko ya ko yonent bi joxoñal ci xadis bi jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu nee na naka suñ yonent bi sallallahu alayhi wa ñu baaxee nañu man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir ku di aji gom yàlla nga di ki gom bés pénc yonent bi nee na la fala yuzi jaarahu bul lor sa dëkkandoor mu teg si ne wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axir képp kudi di aji gëm nga di ki gëm bés penc yonent bi nee na la fal yukrim day fahu na teral sa gan mu teg si ne wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axir képp ku di aji gëm yàlla nga di ki gëm bés bi nee na la fal yakul xayran awli li nanga wax yiw boo noppee nanga ne cel waaw nanga wax yiw wa illaa na nga ne pat na nga mayee noppi mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot dafa mel ni ki yàlla yónni di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam suñu jamonoy tey nit ñi lay waxal ndax ñun ñi ñun ñoo méngoo la yonent bi di digle ci xadis bi ñun ñoo war a bénéficier wu la yonent bi di tegtal ci xadis bi ba tax na la njëkk la mu digle ne yow jullit bi noonu nga war a comporté woo moone yaane danga gëm yàlla gëm nga yàlla ne yàlla yàlla gëm nga ko ci melokaanam bokkaalewuloo kook dara gëm nga yàlla ci pas-pas bu wër nga wéetal ko ci sa pas-pas nga wéetal ko ci sa waxin ak ci sa doxalin bokkaalewuloo ko yàlla dara remplir nga condition arkaanul iman sitta ponk ngëm yàlla ya nekk juróom benn remplir nga ko ba mu mat sëkk nga gëm yàlla gëm yàlla wi ni mel yonent bi nee bu dee teg nga ci gëm nga bés pénc mooy bés bu mujj ci bésu alaxira wala ci bésu àddina muy njëlbeenu taxawaayu bés pénc ndax dafa bokk ci arkaanul imaan wa an tu'minu bil axir waaw nga gëm bés pénc waaw wal yawmil aaxir nga gëm bés bokk na ci ponk ngëm yàlla nga gëm bés pénc yonent bi ne képp ku gëm yàlla nga wéetal yàlla ci ni nga ko gëmee gëm nga fas sa xol nga boole ko wéetal ko ci pas-pas ba nga fas nga wéetal yàlla ci sa kàddu ak sa jëflante ak sa doxalin bokkaale wook yàlla dara nga gëm yàlla gëm yàlla wi su boobaa lañuy valide sa gëm yàlla yow jaam bi waaye nga teg si ne tamit nga gëm bis pénc ndax weddi bés pénc dafa bokk ci weddi yàlla gëm bés pénc dafa bokk ci gëm yàlla yonent bi nee na képp ku gëm yàlla gëm yàlla wi nga gëm bés pénc ci anam bañ la ko joxoñalee nii yonent bi nee na la ma lay digal mooy na nga bàyyi sa xel fala yuzi jaarahu bul lor jëmale ko sa dikkandoor mu teg si ne wa kaana yuminu billahi wal yawmil axir képp ku gëm yàlla ne yàllay sa buur moo fi andi la nga nekke moo ci bàyyi moom la sob nga nekkee ko te moo la fiy jëlee ëllëg bis penc danga nga taxaw ci kanamam mu di la àtte la nga nekkee woon ci kaw suuf si te bés bu mujj ci bési àddina yi lay def loole yonent bi nee na kon na nga bàyyi sa xel fal yu këram day foxu nanga teral sa gan ndekete gan dañ koy teral kenn du toroxal gan mu teg si ne waman kaana yuminu billahi wal yawmil axir képp ku di aji gëm yàlla nga xam ne yàlla mooy buur bu bind juróom-ñaari asamaan bu ne tekk suñu kaw ñu di ko séen mu tiim ñu nga gëm ne yàlla moo bind juróom-ñaari suuf ya nekk suñu ron ñu di ci dox di ci faj suñu aajo di ci tabax di ci xotti ay yoon suñu waruwaay di ci daw ngir privilège ba ñu yàlla jagleel ci kaw suuf si suuf si di sax gàncax joo xamante ne meññeef yi di si bàllee loo xamante ne ñun ñoo ko war a mën a jëfandikoo yàlla ma am kattan ba def lii képp ku gëm buur boobu nga gëm bés pénc ne danga nga taxaw ci kanamu borom bi bés pénc mu doon bés bi nga xamante ne doy na rekk yàlla mu di ñu ko melale mu ne ñu yowma yaquumu nnaasu li rabbil aalamin bés pénc bés la bi nga xamante ne ñéppay taxawu ci kanamu borom bi ndaa doy na rek ñu ne la màndargay bés pénc bokk na ci mu doon bés bi nga xamante ne yowma yafirul mar'u min axi keroog mooy bés bi nga xamante ne kenn ku nekk dinga nga daw sa mbokk moo xam ki nga bokkal géño moo xam ki nga bokkal meen la ndax da ragal ëllëg bés penj mu seen la mu toppee la ak ba jaar seen diggante bés boobu mu nekk bés bu tiis mu nekk bés bi nga xamante ne yàlla buur bi tabaraka wa mu ngi wax gravité bés bi ci suratul xaachia mu ne ko hal ataaka hadisul xaachia wujuhun yowma idin xaachia ah amilatun naasiba loolu yëpp mandargay bés la bi nga xamante ne bés bu raglu la bokk na ci màndargay bés penc boobu yàlla buur wi tabaraka wa muy wax yonentu bi mu ne ko yowma yakunu nnaasu kal bu mabthus keroog doomu aadama yi nit ñi dañuy mel ni ay luppaa luppaa yuy tëñëx tëñëxi di raj raj loo kenn du xam lan ak lan kenn ku nekk sa bopp doy na la problème kenn talul kenn képp ku gëm bés boobu lala yonent bi digal ci maanaa xadis bi mu ne la fa yakul xayran awli yasmut na nga wax yiw wala nga ne pat kon ñun jamonoy tey jii ñun ñoo war a mën a jëfe la xadis bi di tekki na ndigli bu mujj bi nga xamante ne fal yakul xayran aw yasmut la yonent bi wax ci njeexantalu xadis bi yow mi yore sa téléphone yonent bi mu lay avertir micro su ndaw soosu ngay teg sa baaraam di ci wax luy tas pénc yonent bi nee na la jaru ko yow mi yore sa mi micro su ndaw sa nekk nga di sa teg sa baaraam di wili pande suturay nit ñi yonent bi nee na aritel jaru ko yow mi yore sa téléphone micro su ndaw safa nga di si teg sa baaraam di wax waxsu su juunawu wax ju yiw di ko jëmale say nawle wala di ko jëmale ci keneen yenentu bi nee na la nanka arrêté jaru ko waaw ndax yaa ngi nii tegal naa la ñaali valeur en tant que jullit wala doomu aadama yenentu bi nee na la tegal na la ñaali valeur benn bi nee na la nanga wax yiw ci sa gémmiñ na sa làmmiñ di tudd yiw bu dee munoo loolu nela la ñaaleeri valeur bi mooy nanga ne pat nanga ne cell ànd ak noppi waaw yonent bi nee na booy wax nanga wax yiw bu dee munoo wax yiw nanga ne cell nanga noppi waaye yow nga jël ñaali valeur yàlla yonent bi jox comme cadeau nga ne ko man duma ci jëf benn safaanu yiw lay wax te du ma noppi damay wax waay duma wax yiw ba ma sant su ko defee aaya alxuraan ba nekk ci suratul qaaf moo ñëw di feelu xadis bi ah kon yàlla suñu boroom avertir na la mu ne la maa yalfadu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn baat buy jib amul benn kàddu bu doomu aadama bi di yëngal ci làmmiñam mu di ko génnee ci gémmiñam lu dul ñaari malaaka yi kii bindi na ko waaye keneen ki enregistré na ko su ko defee bés ñu di la dégluloo la sa làmmiñ bi nekkoon di wax bu doon danga doon wax lu yiw falaka alhamdu na jawt waaw bu doon danga doon wax yiw texe nga santal yàlla waaye bu fekkente ne woon da doon wax safaanu yiw te su ñeel na la su ko defee cànkute moom ngay dundu keroog bés boobee bés bi nga xamante ne amul jéggalu bés bi nga xamante ne amul baal ma bés bi nga xamante ne amul xawma ko woon xanaa kañ yaa ko gëstuwul yaa ko du déglu ba gaay wax lalay lay njëriñ ci sa àddina ak sa àllaaxira nga ni ñii lii moo leen dese waxtaanu nit yu njëkk yi lañ ñuy àndil ñii dañoo bari wax wallaahi bari ñu wax ña lay tegtal fa ngay teg sa tànk ci dund bi bari wu ñu wax xanaa kon lañ laa yéene yiw dong lañ la yéene ndax fii mooy këru jëfukaay fa li jëm mooy këru peyor kon ña fi nekk di alert nit ñi di leen moytandikuloo ñu bañ a tàbbi ci ndëx sërëxal ba leen seytaane di tëralal nga làqu sa fula kenn gisul nga yore sa téléphone di sa micro nga ne day wax toj toj rekk dina xam ne maak gën a dàq wax toj toj déedéet yow bu ko dàq wax toj toj yow dànkay dàq wax defar nanga nga làq sa ruq yëkkati sa mikro ñaanal ko yàlla jéggal ko won ko ne am na leneen lu fi nekk lu wuute ki yow li nga nekkee nga jëlee ko ci li mu nekkee nga jëmale ko ci li nga nekk ci lu baax nii lañuy defaree nit ku safaanoo ak mbaax ba yàlla wàcce waaye nga ne man lay wax lii dina xam ne maaka ka gën a dàq wax yow nga daldi mel ni moom su ko defee ngeen yem déedéet nit ki loo ko tanee danga kay yërëme dànk kay comprendre waaw amaana yow boo ko defee nit ki la bu dawalee compréhension bu toll ni du la fekk ci li nga nekk loolu mooy la neex kon yowit pour pourquoi pas nga nar koo jëmale ki yëkkati lu ñaaw teg ko sa der waaye yow mi jël yoon wi nga xamante ne dangay ngay wili nit ñi dangay wax safaanu mbaax ci sa làmmiñ yonent bi nee na la nanka arité yiw a ngi fi jëlal dee ko wax munoo wax yiw nee na na noppi waaye yow jëlewoo di wax yiw jëloo noppi ah kon bés pénc buñ la tegee daan yaa ko yóbbee sa bopp ndax yonent bi avertir na la mu ne la man kaana yuminu billahi képp ku di aji gëm yàlla nga gëm yàlla moo la jox cër ya ngay waxee nga gëm ne yàlla moo la jox cër ya ngay doxe di say ñaari tànk nga gëm ne yàlla moo la jox ñaari bët ya ngay waxee ñaari bët ya ngay xoole ak làmmiñ ba ngay waxe ak tuñ yay orienté say wax nga gëm ne yàlla jooju mooy ki moom nga gëm bés penc ne dinga nga taxaw ci kanamam mu àtte la la nga nekkee woon di dund yonent bi nee na waay waay waay waay ñaari valeur yaa ngi nii jox naa la ko nang ci tànn bu la neex waxal yiw bu dee munoo ko na nga ne pat na nga noppi ñaar yi yiw la booy wax yiw ñu bindal la yiw ñu bindal la tiyaaba boo noppee nga mucc musal say cër musal pénc ba nga nekk di dund waaye yow waxoo yiw noppi woo ngay lor sa bopp di tax nit ñi di la joxoñ nga tax nit ñi di la muytu ku la seen ngay ñëw ñu noppi ku la seen ngay dëgg mal si ñu jóg bàyyil ak espace bi boo tukkee kenn du la namm foo ñëwul kenn du la laaj nga nara a dundee noonu ci pénc bi ba su ko defee war ngaa toog seetal sa bopp la ko yóbbee mooy bañ tënk sa bopp lala la bi wax tey waxukaay yi bëri nañu waxkat ñi bari nañu waaye ñay wax ba xam ñu ngi wax la tax ñu war a wax loolu may question bi dañ ne waxukaay bari nañu waxkat ñi bari nañu kon su ko defee ñay wax noonu ca waxu kaañe est-ce que loolu ñuy wax mooy li ñu war a wax bu dee tontu bi waaw kon alhamdulillah bu dee tontu bi déet kon nañ leen seetaat la ñuy wax ci penc bi la ñuy wax ci internet bi fu ne nii la waaye xam da kay wax la waaye xamul mu ci ciy géema ngunu nguni di géema kuri kuri ba ñu dégg làmmiñam ci kaw te moone loolu muy wax xamu ci dara ba dara booloo su ko defee mu nekk benn danger benn choc ba nga xamante ne làmmiñu doomu aadama yi moo koy créer am na lenn ci ña yàlla baaxee xikaayatul xikma ni yàlla baaxe yàlla yënkewal leen sagest dañ ne bés bu nekk cër yi dañuy babbeeku daw dem réclamer ci benn cër bu ngi naan làmmiñ ñu ne ko ngallawaaye ci ruq ba nga nekk ni ñu wëri ak ay siiñ ñu jël siiñ yooyu wërale ko ay bëñ ñu jël bëñ yooyu wërale ko ay tuñ ngalawaay fa nga nekk nang ñu musal nang ñu musal loxo ne ko maa ngi muslu ci yow te yàlla boo wax li tax ñu di ma lor tànk ne ko maa ngi muslu ci yow yàlla boo wax la tax ñu di ma ci lor lex bi ne ko maa ngi muslu ci yow yàlla boo fi wax la tax ñu di ma lor xar kanam bi ne ko maa ngi muslu ci yow yàlla boo fi wax lu tax ñu di ma ci lor diggi ginnaaw bi ne ko maa ngi muuslu ci yow yàlla boo wax la tax ñu di ma ci lor cër yëpp dañuy bokk mànkoo dem jox làmmiñ benn deklaraasiyon bu dëgër ñu ne ko ngàllawaay fa nga nekk di tëju nang fa nekk yàlla boo wax lu tax ñu duñu lor cër yëpp dañuy mànkoo bés bu yàlla sàkk ñu dem def seen déclaration générale ci làmmiñ ñu ne ko ñu ngi lay ñaan ñu ngi lu ci yow fa nga nekk nang fa toog na nga sa bopp fa nga nekk yàlla boo wax dara li tax ñu duñu lor ndax làmmiñ mooy wax lu tax ñuy loru jëmm ji te moom kenn du ko lor kenn du ko xar kenn du ko dagg kenn du ko xotti kenn du ko tappa tappaaral ngàdd sax kenn di ko ko def waaw moom bu waxee li tax ñu war a ngàdd nopp wi nopp bi lañuy ngàdd moom bu waxee lu tax ñu war a mbéj lex bi lex bi lañuy ñuy ne te moo ne lex deful dara te moo ne nopp deful dara waaye lu tax nopp jël wàllam ci méttit parce que làmmiñ wax li tax ñu di ko méttital mais li tax lex bi tamit jël wàllam ci ay méttit ndax làmmeñ moo wax la tax lex bi jël wàllam ci mettit kon yow doomu aadama bi yonent bi nee na la booy wax na wax yiw boo ko mënul na nga noppi aaya alquran ñoo feddali ko ne amul dara lu doomu aadama bi di yëkkati ci kàddu lu dut raqib ak ati dinañ ko enregistré ñii ñu bind ko te bis pinc dinañ la ko won kon njeexantalu xadis bi moo dëppog suñu dund jamono ji tey moo tax yonent bi ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir képp ku di aji gom yàlla ak bés pénc fala yuzi jaarahu bu lor sa dëkkandoor ki yàlla booleel nga dëkk ak moom nang ko sàmmal ak mu teg ci ne wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axir képp ku di aji gom yàlla nga di ko gëm bés pénc bi ne fal yukrim day faxu na nga teral sa gan teral gan nag waxuñu nga def loo mënul da ngay def lu tolloog sa man-man waaye gan bi ngay teral tamit moom it bu mu xeeb lanka terale ndax jamono neexul moom dafa tàmm bu ñëwee nga di ko reyal gàtt nga di ko reyal ginaar tey mu ñëw nga soppi doxalin na xam ne jamono neexul amaana jamono moo la tënk ba sa kattan toll ak lanka teral gan bi tamit na comprendre loolu waaye yow mi ko dalal yow miy njaati géem tamit waxuñu la nga dem dugal sa bopp ci ut teraanga joo xamante ne ëllëg ci biir bor dina la topp walla ngay lor sa bopp loolu yonent bi waxu ko waaw fii daf ne na nga teral sa gan teral gan nag dafa tombeek la nga yor waaw ñetteel bi mu ne ñu képp ko gom yàlla nga di ki gom bis pénc na nga wax yiw wa illaa nanga noppi mbokk yi yar nañu yàlla may dégg topp waxtaan bi jeexul dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ñu war a joxe xibaar ci nasaraan ñu ngi ni taxaw ñu war leen jibbal béréb bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu